ginnaaw bi mbas mi duggee ci réewum Sénégal ak léegi di jàngoro ji ñu naan coronavirus gis nañ ni activité yu bari dañoo taxaw li des ci koor bareetul heure bi client yi daan nañ dem di jënd ay vaisselle ak yu ni mel waaye jaaykat bi am njàqare lool ndax ni njaay mi daan mel melu ko. jamono ji moom niñ koy dundee xaw naa doy waar lool waaye lépp sant la rek gannaaw mbas mi dugg na fi ba ñuy kii moom. gannaaw tëj nañ jumaa jeeg yi ci ci bëri daanaka ñu wàññi ko yooyu moom bu ñëwee ci njaay mi daanaka duñu jaaxal waaye nag ñu ngi sant suñu borom bu baax nam daan demee moom demewutu demewuñu waaye moom ñu ngi sant bu baax daal dañuy wax naan dugg si Touba jafe na génn Touba it jafe na jamono ji ba affaire yi tàmbalee léegi waaye ba tey bagage yi moom mi ngi am ñuy jënd ñi nga xam ne ñuy waaj it comprendre nañ ni ñuy jaayee ndax ñu ci bëri suba gi la ñuy ñëw fi mu ne nii 14 heures daanaka dootoo gis kenn ñëpp dañuy ne seen kër toog ñu ci bëri moom daanaka suba gi comprendre nañ ñuy suba gi danañ ñëw jënd si heure bi ñuy wàcc it ñu ñu wàcc comprendre nañ daal client yeeg euh, commerçant yi daal xamante nañ seen biir. ñeneen ñi di ñaan ngir ñu bàyyi leen ñu dellu si seen njaboot ginnaaw njaay mi doxatul. ñun ay ressortissants lañ yoo xam ne man par exemple Kaolack laa dëkk dama ñëw Touba pour di fi liggéey nekk sama njaboot ñu ngi Kaolack boobu ba léegi mënu fa dem maa ngi confiné wu fii mën nañu prévoir par exemple tey ñu bëggee dem Kaolack dem toog fa wooree fa wala ñu toog fa wala keneen ku bëgg a dem dem toog sa njaboot moo dundu kook ñoom ba affaire bi jeex nga ñëwaat day gën par exemple nga ñëw fii parce que marché bi liggéey amut dix heures la ñuy xëy si deux heures ñu wàcc dem toog ci kër te kër yi nekk ay kër jàmbur lañ léegi suñ ñu mënee may ñun par exemple ñun ñu ubbil ñu frontières yi même bu ñu fay teg ay nit ñu ñu ñu ñu testé ñu ba xam am nañ ko wala amuñ suñ ko amul ñu dugg dem toog suñu njaboot bu jeexee ñu ñëw continuer suñuy liggéey ñun koy loolu la ñuy lancé message pour autorités yi jàppale ñu ci loolu moo gën ñu toog ko fii mënuñu gis suñu njaboot di ko dund ak dund bu métti te ku sañoon tey lépp luy xew ci àdduna parce que kenn xamul mu fekk la si sax njaboot loolu dana gën a oyof si ñun ñun daal loolu lañ bëggoon. heure bi ñu leen may ah, gàtt lool ba mënuñoo jaay. lañ daan jaay ba tax commercant yi di ñaan mbas mi gaaw dem bañ mën a delluwaat sa nañ ko daan defee. mett na lool waaye ñun moom li ñu wax rek la ñuy def ginnaaw ndigal la ñuy wéyee ndigal la ñuy wéyee nee nañ nañu xëy 6 heures di wàcc 3 heures ñun 6 heures la 8 heures la ñuy xëy di wàcc 1 heure 1 heure la ñuy wàcc fi ne xoolal sa montre 1 heure moo def bu ñu soobee tisbaar wàcc loolu la def ñun amuñu leneen yeneen jafe-jafe amuñu. xëy nañ fi wàcc loo ñu 16 heures ñu xëyaat ñu daggaat ko wàcc loo ñu 14 heures. léegi nag bu ñëwee dañu dañ koy tëj loolu moom duñu bett xam nañ ne dana fekk ñu waajal ko bu baax moom ndax xam nañ duñu bett ndax koo xam ne da daan wàcc 19 heures 21 heures nga daan ne ci marché bi tey ñu xëy di la wàcc loo ay 14 heures ak 17 heures buñ nee la dañuy xëy tëj marché bi yow du la bett moom xanaa li ñuy ñaan kay mooy mbas mii fi dugg moom ñu ñaan ci barkeb Cheikhul Khadim barke borom xaayra lépp jeex